ñeent weeru avril bi ñu nekk néegi ni euh, kon atum 1998 ci la ñu fësaloon loi numéro 98 29 bu 14 avril 98 kon jëm ci secteur de l'électricité ci boobule loi chapitre 5 bi euh, ci la ñu daal di woon yëgle ni danañu taxawal ab euh, agence bu tudd ASER di agence sénégalaise de l'électrification rurale ngir fexe gox yi nekk ci biir réew mi mën a am courant eh, ni ko ndakaaru ak yeneen i gox amee eh, Modibo Diop mi ñuy dalal tey nag dafa jaar ca ASER eh, waaye jëlee fa it ay jafe-jafe ndax tëdd na kaso ci njiit gi mu doonoon ci bërëb boobu loolu moo waxal tey ñu bëgg a dikkaat ak moom ci jaar-jaar yooyu dikkaat itam ci ASER ak taxawaayam ci Sénégal Modibo Diop ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité bi ci Demb ak Tay di nuyu sa auditeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci rajo réew mi yëpp vraiment di kontaan ci invitation waxtaane li xewoon démb ak li xew tey rawatina surtout ci affaire parce ma ko jógee ak tey daanaka mat na fukki at mm-hmm. loolu démb la mais démb bi soriwul lool. soriwul loolu euh, kon démb ak tey Modibo Diop di la dalal ngir waxtaanee ASER wax naa li lay waxtaan wi euh, muy fàttaliku euh, bés bi nga xam ne ci la ñu annoncé woon ci loi ne danañu taxawal ASER ñu ñëw déjà ci ASER moomu ndax mën nga ñoo dikkaatal ci objectif yi ak ba nu ko taxawalee itam li doonoon ay tànkam yu njëkk ci Sénégal. xam nga boobu en fait jamono président Abdou Abdou Diouf la woon il fallait trouver benn système pour ñu mën a électrifier euh, àll village àll euh, bon ñu dem ba xam ne certainement Senelec mënatul continuer di def dëkk yi di def dëkk daal di def àll yi am gis-gis naa mille neuf cent quatre-vingt-dix ba quatre-vingt-dix-neuf mm-hmm. mais nañu créé benn structure boo xam ne dañ koy jox spécialement éducation rurale donc mu topp dëkk àll di ko liggéey sa élève yore leneen donc mooy la loi quatre vingt doon la demee loolu moo waraloon loolu donc mission agence moo doon euh, lépp luy dëkku àll rek ñu jox leen ay moyen euh, jox directeur général ak ñi mu nekkal moyen ginnaaw ministre de l'énergie parce que ministère énergie la nekkoon bu njëkk sax ministère énergie et mine la tuddoon mhm. euh, boo seetee Maguette Diouf moo fa njëkkoon a nekk rakku Abdou Diouf foofu la liggéey bi commencé mais Abdou Diouf daf ko monté rek alternance bi ñoo mu daanu président Abdoulaye Wade moo ñëw continuer liggéey bi ci agence boobu. d' accord yow agence boobu kañ nga ko tàmbalee jiite. bon agence bi nag bi ngi commencé amul premier directeur général bi mhm. nekk na fa lu mat trois quatre ans après ku naan dam si yàlla alumnia Pikine comme mu jëgaa yàlla na ko yàlla yërëm moo fa nekk man maa doon troisième directeur général bi ma nommé. en 2007. fekk boobu maa ngi jóge Sénélec euh, ba xam ne maa nekkoon directeur des affaires financières mm-hmm. et président Abdoulaye Wade ne ma bon ak jàppale aussi Madické Niang boobu mi ngi ndeysaan suma mag Madické mm-hmm. mi ngi nekk ministre de ministre de l'énergie jàpp ci bu baax nag avant ba nga xam ne ñu nommé ma foofu mais nomination bi ci suñu doomu ndey suma xarit Samuel la jógee Samuel Sarr mm-hmm. am jamono bi muy ne bi Madické di dem nekk jóge ministère bi Samuel ma ba remplace donc sama nomination mi ngi tombé ak ak Samuel Sarr ma jóge Sénélec ci jamono ma dikkee ñëw ASER comme directeur général 2007. Mhm. def fa nag lu ma daanaka trois ans. parce que 2010 laa ko jógee donc am fukki at a ngi ren bi ma jógee ASER ak tey. d' accord bi nga ñëwee ASER ban situation nga fa fekk ndax fekkoon na liggéey bi euh, daal di dox tuuti. liggéey bi commencé na mais doxul woon dox boobu ndax xam nga ASER ni ñu ko doon nattee. Mhm. mooy li ñu naan la ngay jël ñaata dëkk yooyu ñaataa ci am courant hmm. bi Abdou Diouf di dem téeméeri dëkk yu nekk juróom benn dëkk ñoo amoon courant ci ci Azer hmm. ci ci ci Sénégal eh, man bi may ñëw 2007 téeméeri dëkk yoo jël eh, quinze pour cent yi ñoo amoon courant 2007 mais man en trois ans eh, liggéey naa fa ba nga xam ne jëgle naa kii bi taux bi quinze pour cent ci téeméeri dëkk yu nekk quinze yi am yóbbu ko ba vingt vingt vingt cinq pour cent bi may def loolu laa fi yóbbu ba pare mobiliser na financement yu bare bare bare bare ci alal loolu sax daal moo ma indil problème parce que agence bi kenn xamu ko woon Sénégal yëpp xam nañu xamuñoon luy ASER bi ma fa toogee la yàlla def daal ma ma ma def ci communication waxtaan ak nitu àll yi waxtaan ak député yi parlementaire na ma leen daan gis saa su ne pour wax leen ne agence bi di ngeen ko war a may doole parce que Sénégal bu dee téeméeri ñoo ne Sénégal eh, juróom benn fukki ak juróom ci àll bi lañu nekk te ñoo jàpp leen ne la ci ëpp ci ñoom amuñu ko la lii moo tax mu jóge Azer nekk boîte boo xam ne Sénégal yëpp dañ ko xam foo tourné Azer foo tourné Azer mu mel ni daal xorom ci jën <laughs> lan la doon riiree coow li lu ko loon non liggéey rek xam nga man man man ingénieur la ingénieur polytechnicien la def naa service militaire euh, am na am na ay ay ay ay diplôme i bari ci armée ndax mhm. école polytechnique armée loon technique laa def donc man technicien laa dans le sens pur du terme liggéey rek laa xam. Hmm. dama ñëw organiser liggéey organiser ko euh, ni ma ko organiser mooy dama dama dooleel équipe yi ma nekkeloon ba pare uti ay financement ba pare aussi wax dëgg yàlla jamono boobu suma ministre muy Samuel Sarr ak président Blay ci jàppale ma pour ma ay financement yu dëgër parce que aussi boo ci liggéey ñoom buñ la jàppalee day ëpp doole président Blay gëmoon na ASER gëm boo xam ne parce que xam na ne àll bi moo koy moom tax nañu dimbali ndax àll bi ñoo ko fal te ku defal àll bi dañu am ci yow reconnaissance donc foofu laa toll woon man it ma doxal xam nga nag dafa am loo xam ne sa seemu bopp la faatu. Hmm. <laughs> yaa koy xamal sa bopp dafa am sa comme ni ñu voilà sa seemu bopp la. Hmm. man énergie suma métier la électricité suma métier la pétrole suma métier la yooyu dama ko yàgg liggéey la preuve bi may ñëw ASER liggéey naa lu mat vingt cinq ans yoo xam ne liggéey naa ko ci secteur privé ci domaine yooyu hmm. te boobu Sénégal ñu bari xamuñu ma parce que ñoom xam nga politique bi tax mu mu ñàkk xorom mooy boo ci duggee rek dañ lay ràññee fekk yow yaa ngi doon liggéey leneen loo xam ne moo ëpp doole sax loolu te nee nañ luñ la xam. Mm-hmm. donc loolu laa liggéey doxal fa ay ay ay ay stratégie yu am solo yoo xam ne dama ko jàngi woon feneen wax dëgg yàlla jàngi ko yeneen liggéey ma noonu def ba ASER nekk loo xam ne doo yeewu bés te déggoo ñu tudd ASER Sénégal xam nga loolu yeggoon nañu foofu loolu yëpp. dañ ko fàtte. waaw na kur moom. waaye coow lu baax la parce que boobu Sénégal nitu àll yi gis nañ ne affaire mi ngi liggéey ñoom ñëpp dañuy jóg di ma seet ni ñu may seetee sama salle d'attente dafay fees dell ak ay président de conseil rural hmm. ay chef de village yaa ngi hmm. ay député ay ministres yoo xam dañu bëgg ma defar leen seen dëkk courant hmm. da ngay gis ku jóge fu soree soree sore pour ñëw rek seet si ma pour wax ma dëkkam lu fa nekk nan la amee yaakaar pour ma jàppale ko loolu nag moo ma may que ku ñëw aussi yàlla ku fa mës a ñëw yàlla mayoon na ma taw feex ku fa ñëw rek dinaa am solution pour régler sa problème te nit ñi nag boon indilee courant peut-être nitu Dakar comme Fatou yow boo xamoo luy ñàkk courant bu ñu la coupé Senelec rek rek ngay mer mais ku nekk ci lëndëm juróom fukki at juróom-ñaar fukki at boo ko indilee courant kooku du ko sax indi te ñooñu ba tey dañ lay jàpp da ngay toog sa bërgi démb rek maa ngi wax ci ci rajo nii am na suma waa Coowoor Coowoor mu nga fële ci Gretu Louga mooy village bi nga xam ne moom le premier te dernier tirailleur sénégalais guerru 14 bi nekkoon ndeysaan Vieux Ndiaye gaañu na eh, dañu soxla woon courant Bill Clinton bi mu ñëwee Sénégal defe naa fa la njëkk fa la demoon sax eh, bi ma leen defalee courant ba démb démb démb démb ñu ngi may oo dañuy jàng ay kaani ñu may ñaanal yàlla te loolu amoon ci biir Sénégal fépp muy région yëpp ci dem rek yàlla dimbali ma ba ma def fa loo xam ne yéen boo demee ci laaj ci Tijaan yi si El Hadj Malick eh, Radiyallahu anhu njar ne ma nga xam ne fa la amee woon léppam man mii maa ko électrifié nga hmm. dem ci ñaseen yi eh, boo gisee ku si bàyyi fa bàyyi ñas yàlla yàlla doon leeram ci aljana nekkoon ba am fa faydu ba man maa ko électrifié nga dem Cheikh Anta fa mu nekkoon ci ceytu man maa ko électrifié ak yeneen Touba ak Tiwaan Touba moom taxut a wax parce que eh, dëkk yi nga xam mooy dëkk yu mag yi waa kër sëñ Touba amoon nañu sëñ Fallou Mbacké radiyallahu muy sëñ Basirou ñooñu ñëpp doomi sëñ Touba ay mag yu ak seen yëpp seen dëkk yi dama ko topp xeex ba électrifié te loolu liggéey moo koy maye loolu loolu du politique liggéey la. waaw justement lan moo nekkoon sa secret ba tax yow bi nga ñëwee rek ASER daal di fay jaaree tàq ñëpp xam ko ngay def itam xëy na loo xam ni ñaar ña fa jiitu woon jotuñu koo def. lan moo nekkoon sa feeb yi nga fa yóbbu. mun ñu koon def parce que ki fa njëkkoon nekk dafa commencé liggéey bi euh, euh, mais dafa ay rëq-rëq deuxième bi ka fa nekkoon aussi Alioune def na lu mu man parce que technicien loon mais du woon bokkuñu woon formation bokkuñu woon stratégie moom politique la gënoon jiital. yàlla na ko yàlla yërëm parce que génn na àdduna mm-hmm. maa ngi koy jaale njabootam politique la gënoon jiital man dama liggéey boole liggéey boole politique. Mm-hmm. ñaar yëpp nga boole. ñaa boole boo gisee résultat yi dem noonu parce que taux d'éducation rurale boo toogee trois ans yokk ko pratiquement lu toll ay ay ay sept ba huit pour sant loolu c'est pas évident mm-hmm. mais loolu liggéey moo koy maye parce que taux boobu ñuy calculer <laughs> yow doo ko calculer bailleur de fonds yi ñooy toog état bi génn ko wane ne def nga ko donc loolu liggéey liggéey moo may moo ma moo ma moo ma may loolu dama ko liggéey ba pare jël sama temps yëpp def ko ci fonction bi ma amoon ba pare jëlaat sama temps nag xam ne war naa jàppale président Abdoulaye Wade ci wàllu politique ma wàcc terrain bi Colobane bi samay mbokk ak suma askan wàcc Dakar parce que man léegu pire laa ci ndey ak baay liggéey ba ñëpp topp ma ndax loolu ni ma ñu toppee mooy dama doon def liggéey bi ma yoree Fatou lépp lu ci xam ne dañ ko daan jox nit ñu weex ci ay liggéey commande ci ay liggéey yoo xam ne Sénégal yi mën nañ ko def ma jox ko xale yi ñu liggéey ko mm-hmm. créer emploi ci góor ñi créer emploi ci xale yi ba pare créer nag ay entreprise yoo xam ne ay xale ñoo ko yore dem ci àll bi di liggéey lii succès ñoom amuñu woon feem boobu mm. parce que ñoom seen xam-xam mayu loon woon loolu wala seen gis-gis man la yàlla am ma génne feem boobu boo ko defee nag adduna yëpp dañ lay topp mm. parce que dañuy xam ne kii amal na njëriñ askan amal na njëriñ nit ñi loolu moo ma succès d'accord politique bi nee nga moom nga boole woon ak euh, xam-xam bi ci wàll wi ndax euh, kon euh, mënuñoo yaakaar ne xëy na daan nga bàyyi ñee jox ña far ak yéen loolu ma su cee am. non loolu loolu moom loolu moom amu ci xam nga boobu tamit il faut dire une boobu Abdoulaye toll na bopp koo xam ne ci Sénégal parce que 2007 mu ngi soog a réew bi nit ñëpp jox nañ ko bopp loolu dëgg la am du dëgg. Mm-hmm. bon président Abdoulaye ñu wax fi mu toll 2008 quand même ci audience ak illégitimité politique xam nga dafa doy waar parce que dem na ba Sénégal yëpp dox nañ ko bopp kon boo nekkee ci biir loolu di liggéey eh, doo bàyyi ñu bari parce que sa alal alal bi nga yore ci àll nag matewul Sénégal yëpp mais ñi ëpp ñi ngay defal bàyyi bàyyiwoo kenn bàyyi bàyyi opposant bàyyiwuma bàyyi bàyyiwuma diine jàngu bi jàngu bi ñëpp dama ci daan def lu dul jeex boo seetee église yi nekk diggante Sénégal Padois ba Kaolack. ba Ziguinchor yu ci bari dama dama jëloon benn benn chrétien ndeysaan gaañu na espèce bu miin jàngu bi ñu topp seen église yooyu di fa def ay ay ay lampe solaire waaw demoon naa sedd sax jamono boobu euh, euh, l'abbé bi mag bi nekk Sénégal ñu waxtaan mooy mu kontaan suma liggéey ndax bu ma daan liggéey yooyu pare muy xalifa yi muy euh, jàngu bi muy homme politique yi fu ma liggéey dara damay taal sama oto lu mu sori sori sori damay taal sama oto dem fekk la seet liggéey bu damay waxtaan ak yow nga kontaan xam nga loolu tamit am solo ci ndax yëg loolu yëg la mhm. ñi ñi def ma jiitu woon daaw ñu def loolu mm. man bi ma ko defee la commencé nekk problème mais boobu jamono bi nag président bi daal kontaan na parce que fu mu dem ñu ne ko ah ngi liggéey ma jox la benn exemple mm-hmm. euh, dem na gàmmu deux mille neuf ci waaw président bi la defe naa deux mille neuf waaw sëñ Mansour si yàlla na yàlla doon leeram doon sama wëju gërëm ko ne ko de maa ngi lay sant ndaxte de am nga koo xam ne mu ngi seen biir de ni liggéeyal na ñun suñu kër gi wax boo ci amoon fukk dina dina baax su sem réew mu ne ko kookan nag mu ne kooku Modibo Diop la sëñ Mansour si mm-hmm. bu demee tubaa même chose ndax boobu maa ngi topp famille sëñ Touba ku ci nekk ma def lu ma man mm-hmm. bu demee bu demee Ndiassane même chose bu demee tamit euh, bu demee tamit ci Niassène yi même donc moom dem na ba président Abdoulaye gëm ne Modibo liggéeyal na éducation rurale loo xam ne am na solo mhm. Sénégal yëpp teg ko bët ñëpp dañ ma daan gis amul dara loo xam ne naañ ko dëgg ci réew mi te duñ ma ci boole mhm. am na benn waaye sax may tooñ naan mais yow xanaa soo ñëw yow rek la ñu tudd yaak Abdoulaye Wade ak Karim ma ne ko mais man man waxuma ñu liggéey la gis rek mhm. d' accord léegi euh, Modibo ku la tudd itam euh, tudd Azer xel day dem euh, ci jafe-jafe ya nga fa jëlee ba tax mu yóbbu la ci kaso bi daanaka euh, ci diir bu xaw a yàgg. jafe-jafe yooyu kañ la tàmbali. waaw xam nga nag loolu Sénégal loolu mooy problème bi ah. boo commencé liggéey ba am dimension euh, benn département comme ni ma amee woon doole Dakar nga xam ne sama commune Colobane Parcelles Assainies dama ko gagné gagné bu leer 2009. Mhm. Dakar nekk 19 communes ñëpp ñàkk ba ci Pape Diop sax ñàkk na maire Dakar. Mhm. Karim bëggoon nekk maire Dakar ñàkk. yaa ngi man rek ma. gañe a commune looloo leen ko xañ lim ko doon bëgg a jël jox ko Karim. waaw xam nga dafa affaire bi dafa compliqué loolu am na ci mais am na leneen. Hmm, leneen lan la donc dinaa ci ñëw ma ñëw gañe Dakar gañe sama commune Dakar. Uh-huh. a pare Sénégal yëpp koo ci dem. nit ñi xam ma naa ba xalif général des mourides alaaji alaaji Baara Fadilu yàlla yàlla doon leen ci aljana uh-huh. kontaan ci li ma ko taxawoo ci wàllu village Sénégal yi ñu jël otoom ñëw Dakar ñëw sama kër yendu si xam nga nag yooyu bu commencé am coow day bari gars yi dañuy tiit ñii dañuy dem ne ministre bi ah kii de boo ko bàyyee da jël sa place mhm. ñii dem ne maire de Dakar Pape Diop ah rakk ji de baax na waaye boo ko bàyyee maire bi day jël njam na sax ñu dem ba ci président Blay na ko ah xale bi boo ko moy moytu dina la remplacer. naadu <laughs> xoola wax doom yooyu. loolu yëpp am na ci. yooyu yëpp am na ci donc fa la commencé institution yi commencé jóg euh, ministre bi euh, suma xarit la. Mhm. parce que ñoo bokk Serigne Touba ñoo Samuel Sarr bokk ci woon mm-hmm. mais ñun ñuy dem wax ak moom ne ko ah kii de doole bi mu am te yaa koy jilit nangam nangam boo seetaanee sa place lay jëm boo demee gis Ablaye am na bët mbir ma dem seeti Ablaye Wade daf ma soxla woon ma ooma mm-hmm. may génn dajeeg Samuel ñu waxtaan ma leeral ko ndax daaw ñu rewoon feeg moom daf mm-hmm. ma joxoon cër ma jox ko cër ngir sëriñ Sarr ñu waxtaan ma dem toog benn conseil bu sës ci président Ablaye Wade ooma si ma menacé Ah, naan ma noonu déglu rek ne ma yow dégg naa da nga ñëwoon ci président yaa ngi wër Sénégal da ngay nekk bëgg dañ président fu bëgg a jox ministre de waaye moom la ma ko tontu Fatou moom defe naa ni dootu <laughs> ko defal. Mbadou te <laughs> sama xarit la moo tax bëgg ma ko ma ko tudd. tegal nga ko ca loolu waaw. moo ko wax loolu la ma ko wax keroog. Hmm. loolu kenn ko wax ci rajo kenn du ko nekk. donc fa la problème yi commencé. Hmm. nit ñi dem jaxase rek sa minute. jaxase la ak ak sa sa sa premier ministre bi. Mhm. boobu Souleymane moo fi nekk. aji bu nekk bi après Souleymane mu ñëw ba dem jaxase la ak président boo ko defee nag foofu la problème bi commencé complot bi nag foofu lay commencé ñooñu ñëpp nga xam ne dañu laa ragal tiit la. Mhm. bu ñu àndee benn yoon ñoo lay montel ay dossier mhm. ñi la suma affaire tamit. loolu ginnaaw 2009 la woon. waaw loolu mi ngi commencé 2009 jëm 2010. d'accord. waaw ah, mën nga ne sax parce que ñoom dañ daan def ñoom bu ñu defee loolu. dafa am ku ñuy jox xaalis mhm. mu génn dem seeti ay journaliste ah. génn benn dossier ci presse ndeysaan journaliste njëkk a génn dossier ci presse bi Sud FM la nekkoon grand Fall ndeysaan gaañu na ba ñu waxtaanee yàlla na ko yàlla yërëm ma ne ah, grand yow li ngay def nii foo ko teg mu ne non man daal moo la koy dégg rek jiw sàngam jiw sàngam ñoo ma jox nangam mm. mais jàppal ne bés ni tey dootuñu dugg ban dossier lañ génne woon lan la njëkk a génne loolu dañuy génne affaire rek naan la boo fii am na cent millions yu fi fi am na un milliard yu fi yoo xam ne du waxi dara hmm. xam nga xam nga intoxication politique moom dafa duy doy waar nit ñi dañuy dañuy utiliser presse bi pour def loolu kooku par exemple bi mu njëkkee def loolu laa wax mu jigi ñoom bu ñu jëlee benn dossier boo xam ne dañ koy nañ affaire la jóge di ko pour yàq suma der hmm. bu yegsee ci moom daf may oo ne ma non affaire bi de man wax nañ ma nangam waaye daal sa xel na dal man lool su ma yoon nekk waaye seetal mën naa am ñu jaar feneen mm-hmm. xam nga complot fa lay commencé. ay mm-hmm. complot bi nag dafa yaatu am nañ ay député assemblée nationale ci bokkoon. ah oui ñoom ñoom la jógee ñoom la jógee mm-hmm. ñoo dem wax ne nii sa nii la sa waay la nañ ko jëlee fii buñ ko fi day am doole nañu fexe sax ba maire bi mu nga ñu rocc ko ci loxo maa ngi dégg barki démb sama benn jigéen ay dem mu dem ci rajo yi. télé xam ban télé ak bi wax naan waaw Abdoulaye Wade moom sax gis nga da doon da doon dal ci ay nitam gis nga ne moo Modibo sax ci la bokkoon ma ne ma ne ay ndeyoo xamoo li xew peut-être yow kay ñama doon xeex complot bi da nga caa bokkoon moo tax nga bëgg a setal sa bopp tey mais sama cas du woon kaawu xaalis du woon kaawu accusation mais complot politique la boo xam ne nit ñi dañ ko def pour liquider ma la preuve bi ma gagné mairie bi oo nañ ma au niveau ñu ngi toog fàttali ma Doudou Wade ñu ngi toog. Euh, suñu benn jigéen seen waat député mi ngi toog euh, ndeysaan yaayu ndey Xadi Jéey bi nekkoon SPE. leena. waaw Adja leena yàlla na ko yàlla yërëm mi ngi toog ak ñeneen dama jàppatul foo xam ne Abdoulaye dafa toog ne ma bon su mu nekk nag yow rek yéen rek yéen a gañe dama bañ ngeen xëccoo ba yàq ba yàq maire mm. dama bëggoon ñu waxtaan seet nañu def ñoom fi ñu toog ñu gëm la Abdoulaye ne ko mu di ba daal ingénieur de bon jàng na ay maire day tuuti ci moom. nañu waxtaan ak moom ci biir waxtaan bi pour mu bàyyi maire bi ñu jox ko suñu benn jigéen seen waat bu ko defee moom mu dem ci leneen waxtaan boobu Fatou duma la ko nettali ñi ko fekkoon mën nañ ko nettali. keroog li ma li ma leen wax foofu. booba yaa ngi toog ah, ngi toog mars deux mille deux mille neuf Abdoulaye xam nga dafa bëgg dafa bëgg jàmbaar. <laughs> toog rek ëppal naan ëppal. waaw maag ñoom. léegi ma leen yekkul am. président dem ba xam ne affaire bi ëpp na ko doole ndeysaan yaayu leen a ne comme coow li bari na te xale yi ku leen bàyyi nañu xeer mm-hmm. président bàyyi nañu bàyyi ba suba ñu toogaat waxtaan mm-hmm. fekk xel yi gii man it ma comprendre bon ma may naa boobu cër président Blaise parce que moom xam na ne gañ naa ndax gis na résultat yi gis na suma liggéey mais ñu ngi koy man-manee pour wax ko ne man waruma nekk maire Colomane Fass mais nañ ma jox nañ ko jox keneen bu ko defee man ñu jox ma leneen complot bi foofu la commencé te ñu ko doon def yëpp. te yow nga gagné xam waaw te man ma gagné. bon man it eh, bi leen a waxee loolu ma dellu gannaaw après nag bi ma génnee ba dem am na fu yeneen négociation jaar ba nga xam ne man boobu d'accord naa teggi sama tànk ci maire bi mais président jox ma benn poste ministériel. Hmm. engagement bi la président amoon ak man te gëm naa ne da ko doon def. mais ñoom bañ ko xamee. ñooñu toogoon foofu ñu ci bari ñoo jaaraat ci biir dem monté waat ay complot pour wax président kii nga teg fii liggéeyul waaye ay tappale la fi nekk. ñi hmm. la sama dundee dana waaw. président ba ngeen xëyee ñëwaat mu wax la lan. waxtaanaat nañ ba ñu d'accord maag moom. ok boo seetloo keroog dem nañ benn réunion ñëpp toog fekk maag moom d'accord nañu. Mhm. ba jël décision officielle ne bàyyi naa mairie Colobane Fass Gueule Tapée moom la ko jox ku ko neex. Mhm. ba pare génn def déclaration te RFM. Mhm. keroog boo ko fàttali ko RFM laa def déclaration ne gise naa ak suma papa président Abdoulaye Wade mhm. jox na ma ndigal ci nangam nangu naa ay ndigalam bàyyi naa nangam. mais boobu bàyyi bi fekk ne am na lu lalu ci suuf loo xam ne moom digg na ma ko ne dina ko def. waaw waaw. ministre lan la waxoon la lay def. waaw boobu boobu moom ñaari position la amoon. ou bien ma ou bien ma dem énergie te mine sax la gënoon yaakaar parce que boo seetloo gouvernement boobu ministre des mines bi dañ ko fal ci benn bés wàccewaat ko ci benn bés. Hmm. man seetloo wax ba baax a baax bu dëkkoon Thiès. Hmm. boobu man négociation pour ma dem mine la président Ablaye nga doon def parce que énergie amoon naa ko xam ne mu nga fa Samuel suma ma xam la hmm. mu nga fa bon li mu yore man intéressé wu ma xanaa ñu jox ko lépp loolu doole mais dem jël place am rek pour jël place am loolu intéressé wu ma mi ngi doon liggéey li donc man ñun laa gënoon a mën a taxaw ak ak président la preuve am na benn conseil président bu yoroon boo xam ne moom moo yore jamono boobu affaire montage gouvernement bi oo na ma sama kër ma jabar a ngi toog am yu ma laaj bu ñu xam ne miin moo doon sama moo doon sama position moo war a dugg sama position ci gouvernement mm-hmm. mooy gouvernement bi njëkk am après élection locale deux mille neuf mais xam nga Sénégal Abdoulaye lan moo doon catam mm-hmm. li muy def bu ko nitam yi dañ koy waxante seen biir ñett nit ak ñeent ñoom lu ñu bëgg mu am rek lay ñoo koy yàqal. Hmm. fii laa nga xam ne loolu gouvernement 2009 mujj ma dugg bi ma mujjul dugg fekk na ma sax ma dem génn sorti faax di seeti waa kër Sidi Jamin Karim Wade na ma keroog xamul lu xewat yoon ñu waxtaan maa ngi ci maa ngi ci xamul Sidi Jamin di hmm. wax ko ko ne ko ah affaire bi de ni ñu ko jàpp woon demul noonu mu ne ma noo bàyyi rek dinaa amul ma ci hmm. loolu xam nga gars yi dama leen gëmoon. ndax dama jàpp ne président lu mu wax bu ci dégg. ñaawoo woon jortu ci dara daal. déedéet waaw mais ba dem ba ci biir xam ne seen wax bu ñu ko waxee tamit bu ñu bu génnee ñeneen leen wër ak ñeneen mën nañ soppi seen wax ba ñu def loo xam ne eh, du du sago war leen war leen loo. lii moom a dal seen biir. d'accord léegi lu la yóbbu kaso. waa ñoom nag après ñu monté ay dossier ne waa ji noonu dëkk yi muy wax village muy wax defu ko ah jël na village sàngam nee na def na ko defu ko Euh, dëkk sàngam jaana defe ko xam loolu bu ko see génn. dañu commencé ko tax ci loolu yomb naa vérifier buñ ne defoo te nga def. waaw dafa nang waaw loolu bu xasee génn ba ñu commencé nag ñoom ak doole bi ñu amoon di fay ay ay rajo di fay ay journal ñuy wax. li ma ma xamee ne nit ñi xam ne ñoom ñooy def loolu di ma jaxaseeg président di ma jaay ci presse uh-huh. eh, mais man dama dem sama base génn sumay nit boobu yor na mbooloo bu dul jeex. ñu ñu wàcc ñoon ci presse bi xeex ak ñoom xeex bu tàng jër Sénégal yëpp gis nañ ko. Hmm. xeex boobu sax am na jamono ndeysaan yegg na foo xam ne eh, ak sama nit ñi ak ñoom am na bës fajar teel ma Karim Wade o ne ma Modibo vraiment yow daal ngeen defe ngeen doxalee yaak sa ministre yaak ak maire de Dakar daal il faut ngeen arrêté hmm. parce que ni ngi bëgg a yàq suñu nguur ma ne ko Karim loolu d'accord naa mais ñi nga xam ne ñooy dem ci presse bi di wax ci man di yónnee ay xabaar ma xam leen man loo def ci presse naa ko xam man mënoo ma ëpp relation ci presse hmm. ndax ña ngay def loo ñoom di dinañu bu ma leen laajee dañ ma ne diw sànga ma ko fi indi mm. yaa ngi gis donc ñooñu tamit Karim ñee leen nañ ma bàyyi bu ma bàyyee rek man ma bàyyi mm. Karim ne ma d'accord boobu boobu président mi ngi France à Biarritz président Abdoulaye Wade nekk fa gouvernement bi bu yàgg def naa courant fin deux mille neuf début deux mille dix la mm. donc ma ne ko ñooñu aussi nañu bàyyi li nga xam ne ñu ma koy def bu fekkee man bëggatuñu ma nekk affaire mais nañu waxtaan ma dem feneen ndax li ngeen ma digoon dèjà defu leen ko hmm. bu ñu bëggee nag di yàq suma der man borom mbokk laa duma toog man damay man lébu piir laa damay xeex ba tëdd ci suuf rek waaye du ma bàyyi man boo ma boo ma ma xore la loolu amul sax problème du ma nag waaye bu ma tooñ ma xeex yow koo mën ci doon ak daraja boo mën ci am donc fii la complot yi commencé mu gis président parce boobu yàq la ñu suma der ci président wax wax a wax a wax a a wax ba moom mënatuma ko gis mënatuma wax ak moom ñu ne yóbbu nañu IGE yóbbu nañ ma IGE UG benn yoon laa mos a gis. loola yaa ngi nekk ci boppu Azer. boobu génn naa kañ nga fa génn. Eh, maa ngi fa génn defe naa juin 2010 ci fukki at mu am fukki at. Hmm. ñu def benn mission de contrôle IG IG bi ñu benn yoon la ñu mos a convoqué présidence ma wax ak ñoom bi may dugg kaso ba muy génn mosuma gis rapport IG. noo yëgee bi ñu noonu nga yëgee ne wàcce nañu la ci bopp Azer. waaw boobu nag xam naa ko parce boobu. ñoom ñu ngi dem ci presse bi di dugal ay information comme quoi directeur général bi dañ koy dàq parce que Abdoulaye da ko mere <laughs> yëpp maa ngi koy gis. Ah, kon yow sa dàq yëg nga ko lu jiitu muy am. bu yàgg bu yàgg ko wax ko nit ñi ne leen eh, man dinaa génn affaire bu waxee journaliste dañ maa di sàngam moo ko génn. ah oui. ah oui bien sûr yow tamit. loolu kan a doon yóbbu mbir yooyu. foofu ñetti position rek la benn ministre laa amoon. ak ki nga xam moo doon maire Dakar laay doon xeexal yaa ngi ak ki nga xam ne mi ma bëgg a remplacer alors. waaw doo tudd seen i tur. non du ko jar. ministre bi moom la. waaw moom Samuel Sarr Pape Diop moo doon maire Dakar. xam ne moom remplacé ndam si yàlla Aliou Niala boobu moom yibbi si affaire rek la hmm. ndax boobu gis nga moom jamono boobu da doon def ay lettres anonymes garaaw. di ko yónnee Ablaye ne ko Modibo def na def ne lii def ne lii boo seetloo am na jamono sax yàggul ndeysaan euh, moo jaan fadaat bi muy wax sama cas bi ma ci nekkee ci prison mu naan ñun de dañ doon jot ay lettres anonymes bés bu nekk. Mm-hmm. ci affaire moo tax président jaaxle woon waaye léegi xam nañ ne demewul noonu mais nga xam ne ñoo bëggoon dellu soit ci place bi ñooñu ñoo doon yónnee lettre yooyu. Mm-hmm. donc lii moo ma dal. alors euh, nga ne mosoo gis euh, lettre wala mission wu IGE kenn mosut a ñëw enquête. mosu ñoo daal seen jéem a xam ne fi demee non non ñëw nañ e bi ma génnee. Mm. convoqué nañ ma ma dem palais. jël ñaari inspecteur ñu wax ma jox leen ay documents ñu waxtaan keroog laa bu njëkk gis musuma jot rapport IGE hmm. musuma jot rapport rapport contradictoire IGE donc man may dem prison amul benn rapport boo xam ne bu jógee ci corps de contrôle yi bu ne mu di ba def nañ dañu yeewu rek génne ay chèque ne chèque yi man maa ko jël à peu près ay xawma deux cent trois cent millions loolu la ñu gis village yi ñu waxoon yëpp gisuñu ci dara ci chèque yooyu la ñu ne noonu nañ ko téye en dem nag wax ko Ablaye woon Ablaye neen ah man wax dëgg yàlla xam naa chèque bi signé di ko jël di ko comme ça rek mënuma comprendre fii lañ ko jaar mm. te loolu bi muy commencé am na sama benn xarit député ñëw na bés ne ma man de ngi woon pale waaye de bu yow nga jóg sa bopp li ma gis ñoom ñu koy génne di ko won Ablaye waat ay chèque ay nangam def nga nangam ñu ngi lay waajal du mm. ma tudd député boobu nag sama xarit la mm-hmm. moom ma njëkk a wax avertir ne ma attention si président laa nekkoon gis naa lii gis naa lii gis naa lii gis naa lii mooy tul diw ñoo fa nekkoon ñu ngi génn ay kii di ko président ci yow lañ jëm waaw ndax dañu bëgg nga génn ci gouvernement bi hmm. xam nga loolu complot gënu ko rëy hmm. complot gënu ko rëy donc fii la fii la affaire yi jaar mais nag bi ñu ma arrêté li ci gën a doy waar waaye bi ñu ma arrêté nga ma ñaata milliards biñ demee ci biir gisuñu loolu. waaw ca départ ba ñu ngi waxoon 4 milliards. waaw biñ demee ba ci biir luñ fan sama sama sama sama dossier fu mu mujjee. biñ jëlee benn 400 millions ah yoo xam ne biñ ko teeree. Mm. li ci gën a neex daal du loolu bi ma ne man chèque yi sama yoon nekkul ci gisuma ko. kama doon tuumaal nga xam ne moom la ministre waxoon mu def plainte muy Alioune Niang moom ci chèque yooyu 150 millions ay chèques yu signé ngi ci. Mm. waaw moom bu affaire bi doyee waar nag moom jombi na ndax boobu vraiment dañ ko war a mm-hmm. bu dee. waaw loolu lañ ko jàppee bu fekkee dañ ma jàpp man ay teg trois cent et quelques millions. Ah, moom ci biir te moom ci enquête yi ñuy def moom ay signature cent cinquante millions mi ngi ci ay chèques xanaa moom war nañ ko jàpp. Hmm. ñu protéger ko ne non moom bokkul ci enquête bi man nañu topp waaye moom ba mu nekkatul nit ndax xam na ne dañ ma doon tuumaal. Hmm. man bi ma ne ma xaw ma ci dara moom am na loo xam ne moom mu nga ci biir tàq ci rip rip rip rip rip. te hmm. eh, eh, régime bu la buggee protéger da lay protéger. ñoom la. non ay chèques la yoo xam ne expliqué naa ko loolu sax jaruma ci dellu si expliqué naa ko sama biir auditoire ma ne nag man maa doon directeur général maa jël responsabilité boobu hmm. mais ay xam nga boo nekkee directeur général tu peux faire des délégations de signature. d'accord boo ko defee aussi lu fa xew yow la. waaw c'est responsabilité la daal daanaka lii moom daal te loolu daf dafa doon am avant may ñëw ci alinéa boobu am fa ci moom loo xam ne moom lu mu signal bopp ba nga xam ne ci biir enquête yi moom sama chèque yooyu ñu tudd ay trois cent moom cent cinquante millions ay chèque am moo ngi ci biir yoo xam ne moo ko tëjal boppam. xam nga kon bu ñu ma téye war nañu ko téye. waaw day boo seetloo avocat bi nga xam mooy maître Ndeye ndeysaan moo mhm. eh, na ko yàlla yërëm moom tamit ci biir problème yi la génn gaañu dafa gaañu ndeysaan. Mhm. suma directeur technique. Mhm. keroog médecin dafa ne mais yéen nan ngeen mën a téye mu dugg ci xam ne yéen a ne daf ko jox nit mu signé ko waaye chèque yooyu ñu gis Alioune Niang ñii ko def plainte moom ma nga ca biir ñu mën a téye kii bàyyi kii loolu mooy ban justice hmm. mais ils l'ont protégé kenn tudd ko. d'accord donc accusation quatre xaw ma quatre milliards xaw ma ñaata. Hmm. ci trois cent cinquante millions lu mujj ay chèques yoo xam ne moom nee nañu nee nañu man la ak hmm. chèque boo xam ne tamit sa waa ji nga xam ne moom porté plainte moom moo woon ci biir signé na ko. lii moo sama dossier. kañ lañ la teg loxo. non décembre deux mille dix laa fa nekk ba juin. deux mille euh, deux mille quatorze defe naa donc j'ai fait trois ans parce que sama enquête yi yàgg parce que enquête yi enquête mu yàggee mooy bu ñu la accusé lu toll noonu mm-hmm. tribunal bi boo ñëwee ne amul tribunal dañuy jël benn juge indépendant dañuy jël benn cabinet cabinet indépendant boo xam ne ay ay ay kii lañu euh, ay spécialiste en comptabilité fiscalité ñu topp banque yi topp compte yëpp kooku bi ñu ko joxee dossier bi cinq milliards lañ ko jox dafa topp compte yi topp banque yi topp loolu mooy yàgg. ba hmm. ne ah wax dëgg yàlla man li ngeen wax ni daal <laughs> gisuma ko quoi man daal di laaj. déposé rapport am kooku man mosuma ko teg bët. Hmm. benn yoon lañ daje bi ñu may visé ma taxaw ci wetam keroog laa ko mujj gis. keroog mujj la wala jàppaguñ la. non boobu jàpp nañ la. d'accord kon yow dañ na bëri rek ñu teg la loxo. dañ koy bëree ñu teg ma non man aw ma ra aw ma man dañ ma teg ba pare dem di enquête. d'accord xam nga dañ xam nga dañu war a enquête ba pare. waaw waaw de moom du fi moom du guleet moom. mais mais dañ man dañ ma jël dugal noonu kaso ba pare dañuy def ay ay ay ay ay ay UG yooyu UG man mosoo gis seen rapport. après nag tribunal tribunal mu ne ma xam ne xam ne juge bi xam ne affaire bi amul enquête yu dëgër. Mhm. dañ dem na mi un un un indépendant benn comptable indépendant boo xam ne. juge tribunal la ko agréé kooku nag moo continue enquête yi kooku sax moo leeral carte parce que moo génn ne bon affaire bu cinq milliards bi amul man daal li ma gis ay chèque la yoo xam ne am na presque trois cent cinquante millions chèques yoo xam ne responsabilité mu jubalo mm. ndax bi mu nekkee directeur général am waaye nag ko tuumaal Alioune Niang moom it ci biir chèques yooyu am na ci cent cinquante millions chèques lii mm-hmm. waaw loolu sax moo ma loolu moo ma sauvé ah parce que moo moo moo coow li d'accord d'accord ba Diop sa guddi gu njëkk ci kaso noo ko dundee. waaw xam nga prison lu doy waar surtout boo booy dund ci àdduna bon nga yow da nga naan man lan moom la dugal kaso parce que defuma lu ma ci war a mm. dal ngay wax toujours ba yàlla teg la natt bu toll noonu mm. nga ñëw dugg. soo xam ne say nit nga fay ay nit nga fay teg comme yow donc boo ñëwee da ngay préparer sa bopp. chambre privée nga nekkoon ci non ci non ngay nekk chambre chambre ay cinquante personnes ngay nekk. ok chambre privée amul boobu amul privé président amul privé ñëppay bokk benn xanaa peut ku mel ni Karim ak Khalifa la ñu beroon parce que man fi ma nekkoon après Karim am na fu ko beroon ci kanam. mais sinon ci nit ngay nekk bon yaa fay nekk. nekk fa sa dignité nekk fa sa gor nekk fa xam ne jullit nga nag def si na ci yow. Mhm. nga vivre ko ak dignité vivre ko ak sa njaboot ak dignité surtout ak say militants parce que militants yi mooy problème bi. Mhm. man dama daan recevoir ay li may recevoir ci visite ci prison amul benn ku ñu tëj kas ku recevoir. ñu ñu des ba tey ci guddi gu njëkk gi euh, euh, bi nga yegsee déjà naka lañ la accueillir ñoom détenu yi nga fa fekk. non ak beaucoup de respect parce que xam nga ñoom ñoom dañu ne dañuy xam ne kii defal nañ ko kii ñu ñëw non da non data prison da nga am télévision am nga rajo am nga lépp dañuy déglu rajo di seetaan télévision kon boo ñëwee dañuy xam ne yow yaay responsable bi ñu doon wax fan yi dañ la jox cër bi nga xam ne moom la moom nga am nga ne seen biir aussi respecté leen ngeen xam ne yéen a bokk nattu ay relation sax dafay juddu que da ngay mujj xam seen ay jabar xam seen ay doom mm-hmm. di di ay bokk di nekk mm-hmm. ba mujj gi am relation yoo xam ne sax boo leen génnee ci jafe-jafe boobu sax di ngeen ko encore di entretenir ba tey am na ci ñoo xam ne su may xarit lañu dañuy waxtaan yenn saa yi ma nekk na ci prisonnier nekk na aussi ci garde pénitentiaire li mm-hmm. ñu baax ñoo fa nekk wax dëgg yàlla dañu xam ne natt yëg na ñoom bon donc dañ koy gérer. d'accord keroog nelaw nga. waa doo doo neen doo neen doo neen nelaw nga parce que foofu fekk na aussi sonn nga parce que bu fekkee dañu la téye pendant presque une journée de police di la enquête ñëw jël si la bon téyewaat la kaaf bi loolu dafa metti hmm. kooku moom te noonu bi gën a metti ci àdduna man yéen ma ko mu dem prison hmm. mais nag man yàlla mayoon na ma ci mbaaxam ak ma yërmandeem benn dal boo xam ne ñu ma daan seet xam nañ ko lu mu metti metti yàlla suturaalo suma saali hmm. loolu ñëpp xam nañ ko ci man loolu nag mbaaxu suñu borom rek la parce que suñu borom moo a préparé woon xam ne di natt bi ñëw ci man la mu woyefal ma ko ci gëm ma santaat bu baax ndax su ma ma ay soxna su ma ay doom am nañu dal boobu xam ne dam ne supporté bi hmm. ak su ma ay militant sax ñoom ñoom gis xeex bu ne xeex nañ ko ci réew hmm. taal nañ ko fu ne ne yéeg nañ ko fu ne wàcc nañ ko waaw gi sax mujj na métti ci Abdoulaye Wade métti xam ne fu mu a def meeting samay a dem nañ fa wane ko ne li nga yàq meeting ba wane ko li nga def tegoo ko fenn ci ay complot la bu fekkee ne ñu def la mais jàppal ñëpp te wax nañu dëgg ndax boobu problème annonce bi mi ngi fi. Mm-hmm. Karim mu Fesman bi mi ngi fi kenn xamul mu toll. Mm-hmm. énergie boobu ñuy wax boobu ay détournement yu garaaw ñu ngi fi yoo xam ne xam nga feeñ na léegi. Mm-hmm. yaa ngi gis mairie Dakar bi ñuy wax bi ñu tax ñu jàpp Khalifa Sall gis nga bi ñu jàppee Khalifa Sall gis nga Pape Diop génn na ne man li ma def moo gën a garaaw li Khalifa Sall def. lu nekk kon doon xam nga dañ la doon jéem a taxal eh, yàlla nattu leen ñu ñàkk seen régime ba pare ñoom ñoo la gën a tax ci lay ci lay ci lay ci lay ci lay ki nga xam ne lay santaane fekk. fekk moom sangul. waaw fekk sangul moo leen dal yooyu yëpp avec le recul da ngay xam ne jëru ko woon parce que tey loolu jeex na muy ànd ñaa gis nga yàlla def na génn na àdduna yàlla ko yàlla yërëm. bon Samuel mi ngi ci dëkk bi ba tey yenn saa yi ñu daje waxtaan xam nañ ne ñun ñaar ñëpp loolu xajul woon suñu diggante hmm. Pape Diop mi ngi ci dëkk bi <laughs> amatul benn doole parce que bi Ablaye beneen la daanu ak keneen ak keneen ak keneen kon avec le recul ngay xam ne bu fekkoon ñoom am na nañu dalu seere seen régime toppatoo problème bi mën na am sax Ablaye Wade du daanu mën na am sax eh, ñoom kenn ci dem kaso ndax yàlla dimbali na ñi ma laal ñëpp ci nekk am nga problème Hmm. amu ci kenn koo xam ne bokkoon na ci complot laal ma te yàlla tegu la natt boo xam ne di nga xam ne tooñ ñoom ñëpp ah loolu yàlla def hmm. te yow biroon na la ne takkoo ci laale woo ci. ay non non man man man man daf ma wóor ne man man bu fekkee jàng rek faat man ñoom ñu coow ñe hmm. li ma jàng Karim Wade jàng ko li ma jàng. Karim Wade jàng ko li ma liggéey Karim Wade liggéey kon ñu ci def taxul may wax bu fekkoon ut xaalis la rek. ak dëng rek man maa gën waroon a jekk pour man am xaalis ndax pexe yi ma amoon ak fi ma yeggoon ci xam-xam ak relation ci ci réew mi dugub réew hmm. kon man man dama gàcce ak sa ñoom li ñu def après ñëpp gis nañ ko lu hmm. kon man pour man taxuma ci tax bu tax ñu may war a teg coono bu toll noonu pour man ax la ma régime Abdoulaye Wade yore ak ñu mu àndaloon hmm. te ax boobu gis naa ne yàlla àtt na ma ak ñoom ndax li ma àtteeg moom mais képp koo xam ne sa loxo duggoon na ci mbir bi ngay député ngay ministre ngay directeur général ngay journaliste yàlla teg na la tuuma boo xam ne teg na la nit boo xam ne da nga xam ne tooñ baaxul xoolal li gën a doy ñoom ñëpp ñu leen di arrêté Colobane lañ leen di jàppee arrêté man fi ma dëkk xam nga loolu loolu du hasard de. Mm-hmm. loolu mënul nekk hasard. man fi ma dëkk ñu jooyloo waa Colobane jooyloo waa Fass jooyloo waa Dakar jooyloo waa Touba ci bi ma dëkk ñoom ñëpp bi ñu leen di arrêté kenn arrêté wu leen de prison kenn arrêté wu leen commissariat central Colobane lañ leen fanaanal ñoom ñëpp arrêté leen yóbbu leen képp koo xam ne gën nga yàlla am nga seet hmm. loolu boo ko xoolee di nga xam ne loolu dara la. du ay du jaaxal fa jàpp Colobane. xam nga leen waaye xam nga ñëw milice ñu jàpp. kan wax rek man xaw ma de fi ma ne nii. non xaw ma def damay laaj de gisoo fi mu ne lépp dama la koy laaj ndax xaw ma ci dara. mais mais arrestation PDS gis nga ko. PDS suñu leen commencé kër yi ñaata nit ñoo demul kër yi fuñ jaar du ko lañ jaar. gendarmerie ba. gendarmerie lañ jaar boobu moom suma kër matul matul. section de recherche matul 500 mètres. boobu man maa ngi fi maa ngi ci toog. ñoom sama kër bi ma dëkk dañ leen di dañ leen di arrêté nga xam ne sama militant yi mujj dañ leen dem leen fii bu leen fi taxawal aca ci biti ndax li ngeen ñu teg ay ay naqar moom la leen yàlla tey ci seen mbir xam nga ne Karim ñu ngi ko arrêté ñu ngi ko arrêté Colobane yóbbu ko mm. loolu umpuwul certains arrêté nañ ko deux fois Colobane yóbbu ko ak ñi nga xam ne dañu indi Colobane def leen ay enquêtes ci secret ñu war a xaar ñu ne ñu dugg ci ay luukoor yoo xam ne dañu delloo xaalis ci suuf ñu député lañu ñu ay ministre lañu loolu xam nañ ko donc pour dire que. li ma ci comme jàngat man may wax ni fee ñi la demee umpul Sénégal xam nañ ñi la awma ci dara ma ci wax lu dul mais jàngat bi ma ciy jëlee mooy Ablaye Wade fi mu toll woon ci daraja ak xam-xam ak mm. ak nguur goo xam ne nguur gu neex la ñoom yàqal nañ ko liggéeyam mm-hmm. man tey jii président Ablaye man nu ma ko gis ñaa ko gis sama xel lay dem ci moom ma koy ñaanal yàlla mais dama ko yërëm parce que ma naan li ko dal moom mérité wul lii mm. parce que liggéey na ci wàllu politique benn président xeex ba yore nguur pendant douze ans nguuram neex mais ay nit tëj nañ ko ci ruq yàqal nañ ko liggéeyam nit ñooñu tey nan lañu def ñoom ñu bàyyi nañ ko koo gisati muy dem ci moom hmm. doy léegi ñu taxawande ñu taxawandeegum foofu dellusiwaat ci yow euh, noo génnee kaso waaw man nag ñu ma génnee biñu dem enquête yi jeex ñu hmm. xam ne liñ ma doon tuumaal lii la juge def arrêté yóbbu ma ñu ma normalement dem ba xam ne peine bi ma bari dañu ne euh, xëy na da nga euh, lëkkaloog Macky Sall ngeen def li gars yi di def deal bu ma génnee naa la jàppale moo tax nga génn waaw ah, non xam nga gars yi xam nga gars yi ñoom gars yi ñoom boo leen weer waa ñi ñu leen weer jàpp politique moom yàlla moo nattoo Sénégal xam nga Sénégal baax mm. yàlla nañu yàlla suturaal ba Sénégal politique bi changé parce que yàqu-yàqu Sénégal yëpp ci politique la ma yëgal la ko tey mm. yàqu-yàqu Sénégal yëpp ci politique ndax politique bi lan la dafa am ñoo xam ne amuñu liggéey amuñu métier jànguñu defuñu dara ñi ñooy dem di politique bi ci ëpp politique bi lañ def métier ñoom nag ci la da leen jaral lu nekk ñoom ñooy ñooy dem presse di yàq ñooy dem ci sëriñ di yàq ñooy dem autorité di yàq ndaxte gis ku ñu gis nga taxaw rek yore benn dërëm ñu ne ah ci de bu ko fi bàyyee bu baax ndax ñoom ñu doon am ci moom bu ko fi toogee ñun nañ ko kon dañu ñaan su def Sénégal politique bi ba mel ni politique mu ngi demee en parce que lii yàqu-yàqu Sénégal yëpp ma yëgal la ko tey depuis mille neuf cent soixante ba tey ci problème moom Mamadou Diatta président Senghor ba ci problème Abdoulaye Wade ñu toll mën nga ne yàqu-yàqu Sénégal yëpp ci politique la jógee ndaxte dafa ñoo xam ne métti lañ ko def jàpp nañ ci lañ war am jabar ci lañ a am kër ci lañ war a am oto ci lañ war a tedd ndax ñoom defuñu jànguñu liggéeyuñu ñooñu problème politique ci ñoom la jógee peut-être li ñuy ñaan mooy suñu ay doom ak suñu ay sëriñ suñu sëriñ ëllëg bu ñuy politique moo am ay valeur ci biir parce que politique bi ma gis Sénégal nii di ci ëpp fenn la trahison sos yàq sëriñ du def lu bon li moo li moo fi xam loolu neexul ci am réew mm. surtout réew moo xam ne réew jullit la mais suñu kaay yu mel ni peut-être mooy tax ñu gën a jàngaat gën a góor góorlu nga xam ne ëllëg politique pour defar sa réew la nekk pour yàq ay nit. pour ay liggéey ay nit pour ay dem nit liggéey ko mu dof liggéey ko mu dem kaso te yooyu rek ngay dund ak ñoom boo nekkee seen biir feeñal sa liggéey bi. alors bi nga nekkee prison sa mbokk waa PDS yi ban taxawaay lañ ci amoon déggante woo ci président wala nga jot sax benn message am. non non non amuñu taxawaay ñëwuñ ko parce que loo xam ne yaa ko def. wóor na ne yow yaa ko def boo demee waat ci yàlla defoo ko te yow boo tuddee sa njëgënaay xam nga ne lii yow yaa ko def ko doo ci am taxawaay bon bi ma fa nekkee yàgg naa ko eh, doon naa am nag contact parce que ma avocat ak président Abdoulaye am contact ak mm. moom. dem na ba ci diir mu xam ne lii ñu wax Modibo amul bu dëgg naa ko fa jëlee boo seetloo ci biir élection yi ñëw na Colobane loolu ñu ngi ci archive bi taxaw ne waa Colobane xam naa li leen naqari Modibo Diop bi ñu jàpp man de dama juum ci mbiram maa ngi fexe mu a kaso hmm. waaye boobu c'était trop tard ndax boobu na ba pare ndax boobu xamal nañ ko ne Modibo doole bi mu am ci wàllu politique Dakar am ko ci Sénégal ci ay relation hmm. eh, boo ko tëjee doo doo mën a jàll doo dem parce que am na électorat boo xam ne war na la gannaaw te moom moom moo tax moom nag am na rëcc bu baax nag suma diggante ak moom wax dëgg yàlla dama ni lan la la mës a yónnee ci kàddu wala message loo xam ne yegg na ci sa xol bi nga nekkee kaso moom président Wade. waa am na ay ay ay action yoo xam ne peut-être rajo lu tax ma def ma wax ko. Mm. parce que loolu du waxu rajo yoo xam ne def na ko vraiment loolu gëm naa ne def jëmale ko suma jàpp gëm naa ne boobu xolam tooy na ci man xam na ne lim ma teg àq la diis na diis na diis na diis na diis na te hmm. am na wax ci sa ginnaaw waa waa waa bi ma bi ma duggee ci hmm. moom man du ma jóge foofu d'accord nekk am na loo nag mënu ma ko wax ci rajo hmm. wax loolu aussi man neex na suma xol ba nga xam ne xam naa ne góor gi jaxase nañ ñu waaye góor gi xam na sama mérite xam na ne liggéeyal naa ko mais euh, ñi ko wër lu ci bari lu daan jël ay décision ñoo koy yàq nga xam ne fi ma toll nekk yow nii bu ma waxee dëgg rek eh, bu may togg si ak ma xel lay dem ci moom ma ñaan ko yàlla ñaan ko yàlla nekk di xam naa ne tooñ na ma sax ndaxte teg na ma àq waaye nattu ñëw na waaye jéggal naa ko moom président Abdoulaye Wade ci li ma def si xam ne métti na ma ma woon jéggal naa ko ndax am na rëcc bu mu def xam nga li nga def dara pare am ci rëcc ki def am rëcc kooku mën nga ko jéggal mais ki def ka xam dafa def pare jàpp na ñu ci yoon kooku yàlla sax du ko jéggal wax waa nit ñi ko bu ma la déggee ñeneen ñi baaloo leen. non pour man pour man ku ci nekk la nga def xam nga ne boo tëddee sa biir xam nga la te xam nga li la ci dal ndax ñoom ñëpp teraanga bi ñu nekkoon ak mu jigi man bi régime bi daanoo suñu jaar ci jafe-jafe ku ci nekk ba ci Karim Wade ma ca Doha boo toogee sa biir néeg xam nga ne li nga def def da nga waroon def defoo ko. Hmm. kon bu question ay baal yow xam nga sa bopp. waaw tontu woo ma dama ne ndax yow baal nga leen. wala baal ndax yow yaa ne baal nga président Ablaye Wade. man ma ne la ndax ñeneen ñi baal nga leen. moom li ma def yëpp jégal naa ko ndax xam naa ne am na rëcc ñi ñuy def nag dama gisul rëcc sama diggante ak ñoom. jégaloo leen. ndax damay dajeeg ñoom ñu ci ëpp mais dama gisul benn benn effort bu def pour wane ne ñoom tuub nañu sama diggante ak ñoom te juum bi jigu leen ndax yàlla teg na leen ay natt yu metti ñu wan ma benn compassion ak benn rëcc. ba léegi tontu ma de baal nga leen. wala baal li ma la li ma la wax mën nga ko a. baaloo leen kon. bu leer la. baaloo leen ndax wonuñu la ne rëccu nañ. xam nga xam nga Abdoulaye li mu def. dafa mm. rëy man li ma nekk ci problème bi Abdoulaye ñu may toppatoo. waaw am na xam mënu ma ko wax ci rajo mënu ma ko wax ci télé. la mi ngi may toppatoo xam ne juum na ñii yemul foofu dem na bi samay mbokk xamal leen ne man. nga gis ne Wade rëccu na xaaroo mu baalu la yow nga. baalu ci ma xam ne ma xam ne ma xam ne Wade rëccu xool xool ba caag ma ne góor gi yàlla ñu jaxase mais góor gi bëggoon ko ci xol bu ko ci xol bu la. ñeneen ñi baaloo leen ndax gisoo ci ñoom rëccu loolu la. waaw yow yaa wax loolu man dama lay wax ma toll. ah kon wax ma lan la xam nga man mën naa jàpp loo xam ne du loolu. li nga naan ku ne ni ngay toggee sa bopp <laughs> waaw man li ma wax li ma wax. Uh-huh. mooy Ablaye Wade def na ma lu métti. Uh-huh. xam na ne def na ma lu ci toog parce la ma doon reproché. boo seetee événement yi wane na ne ñi ma porté la ñu def moo gën a garaaw. Mhm. doomam li mu def moo gën a garaaw ak ñeneen ak ñeneen ndax loolu feeñ na léegi Sénégal yi teg nañ ci bët. dëgg la moom am na rëcc ci loolu. Mhm. lu jiitu sax loolu di am. Mhm. muy seq ak man ci diggante bi ba ma xam ne kii dafa juum rek mais kii xolam nekkul woon ci pour mu teg ma teg ma teg ma trop. dëgg la la fitna. nee na góor gi man jégal naa ko. mais man dama koy yàlla ñu ko tiim xam na ne man ma man daal bi suñ Tuubaa laa man aw may tappale aw may jaaxal ni ay politicien dama koy ñaanal yàlla yàlla wéral ko yàggal ko amiin dama toujours dama koy ñaan dëgg la dama koy ñaanal parce que xam naa ne juum na nangu na ne juum na d'accord alors sa relation ak président Macky Sall bi nga nekkee ci prison bi lan la woon non Macky Sall bi question ay prison président Macky Sall ñëpp xam nañu PDS nekk. dëgg la xamante ngeen bu muy man muy li mhm. may wax muy ñeneen ñëpp amoon nañu relation. Mhm. parce que président Macky Sall musul ñaawal digganteem ak nit mu nekk ci PDS moom chance boobu la ko yàlla may. ok moom musul nekk nitu fitna muy muy nekk biir parti lu mu mën a def ci kaw dina wane ne def na ko def bu rafet lii moo doon sama relation moom moo doon sama relation ak ak moom te ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon PDS mm-hmm. quatre-vingt-dix pour cent lii moo doon seen relation Macky parce que mm-hmm. nekkoon seen biir di liggéey buñ ko sonalee mu toog muñ moom moo ko may li moom ci biir loolu nag man sama relation moom mosul ñaaw lu muy lu muy ci nekkee rafet na ndax da daan am xew ko bu may gàmmu ñu jógee këram ñëw sama kër gàmmu fi mm-hmm. def na ko ñu am relation yu rafet bi mu nee ci pouvoir aussi ñu am relation yu rafet ba tey maak moom relation yu rafet la ñu gisaguma lu ci yàq suñu diggante mm. donc buy wax moom rek PDS ci boppam ñu seetee seen bopp Macky Sall musu leen def dara loo xam ne ñu nuru lu metti la bi muy netteel ji mm. mais particulièrement yow euh, bi nga nekkee ci prison bi ba moom mu ñëw est-ce que am na taxawaay bu particulière aussi boo xam ni am na ko yow si sa dossier. non non sama dossier dafa laaj yooyu moom bu leen jaxase politique. non damay laaj man damay laaj. non dama laaj non voilà c'est important parce que nit ñi xam nga xam nga euh, man aussi. li may dégg ci nit ñi wala li ma jàpp ne opinion bi moom la ñu gën a gëm. Ah, man loolu laa parce que li ci nekk kenn mënuñu koo dul yow. man daal li lay wax. waaw. mooy man justice laa demoon sama dossier réglé wu naa ok li ci nekk nag mooy président Macky Sall musuma ak moom lu dul teraanga mhm. su ko gars di xeex bokkuma ci bañ koy complot bokkuma ci yaa ngi mhm. dëgg loolu moom xam na ko man xam naa ko moom ñu ngi seqaloon peut-être xam na leen ci lu ñaaw man bokkuma ci loolu loolu ma yàlla suturaal mhm. ndax moom it complot bu gën a garaaw bi ma def lañ ko bu génneeku ñu ko def moo gën a garaaw. kon yéen a xaw a yàlla yàlla yàlla ko suturaal rek demoon kaso te da doon dem de. ok lañ ko doon jàpp ndax ñoom waajoon na ñoom seen complot yëpp ci Idriss Seck ba ci Macky Sall ba ci man ku ci mës a am doole ci parti bi bëgg la xeex dañ ñaan lañ ko tëj kaso bu ñu ko tëjee kaso may ñu jàpp Macky Sall dafa rëcc mais da doon dem. ah oui sànq am na loo ma dig euh, nga ne woon di nga ci ñëwaat euh, mooy euh, Karim Wade ak mairie bu Ndakaaru jàpp nañu ne 2009 li ko tax ñàkk PDS mooy ñëpp dañu gëmoon ne Pape Diop moom dañ koo teg nii rek di ko waate waaye bu ko jëlee Karim la koy jox newoon nga di nga ci ñëwaat bala ñuy yëkkati jotaay bi. waaw loolu xam nga na ñëpp. Mhm. lu tax Karim nekk nekk ci liste maire la jaaxaloon na ñëpp. Mhm. bon mais boobu aussi il faut gis-gisu PDS ñu ci ëppoon bokk moo doon Karim jël maire Dakar loolu moom gis-gisu PDS loolu moom moom ne bëtu ñëpp xam nañ nag di indi parce que ka fa nekkoon maire Pape am na doole mhm. moom it bu ko yoon dem keneen noonu keneen noonu man nag li ma ci defal ndimbal mooy man sama mhm. commune man moom dama ko gagné mhm. ñëpp xam nañ ne naa ko dama ko gagné ba téye ko waaye ñoom bañ dee ma xam ne ñàkk nañu maire Dakar ñàkk nañu lépp man ma gagné woon man <laughs> ñu bañ ma am daal ndax xam nañ ne jàpp nañ ne bu ma amee dara ñoom du baax ci yoon ndax ñoom ñàkk nañ lii mooy problème mais c'est vrai Karim ñëpp xam nañ ne Karim deux mille neuf moom euh, ñun ñi ñu njortoon ne dañ ko bëgg a def maire Dakar mën nga ne dëgg la parce que mu la ci maire bi duggin boo xam ne jaaxal na ak léegi loolu nag indi na problème yu bari du ma ne sax moo tax mu ñàkk ah mais nag indi na problème yu bari xam nga Sénégal ñoom changement la bañ changement la ñu bañ parce que boobu am na ñu nekk ci système maire yi muy maire commune yeeg maire bu mag bi peut-être soppeeku bi du leen neex te pourtant am na jamono am na loolu lu ñu xalaat ne diw sàngam yàgg na béréb sàngam ñu ko ko leneen ñu gën ndax ko defee ku bees ñëw loolu mais dafay régénérer parti waxuma sax xarit na mais ci man ci keneen ak ci keneen mu loolu def loolu dafay régénérer parti cest à indiwaat deret bu bees ci parti parce que parti bu yàggee ba nga xam ne ay nit ñu fa yàgg rek ñoo ko nekk lool dafay dafay du indi motivation da indi ay ay du cent neuf ay jeunes wala de moins jeunes ñoo xam ne mag ngeen di encadré euh, loolu la am solo defe naa période nag loolu loolu mu perte parce que mag ñi ñoo nangul woon encadré des plus jeunes yi nga ne ñoom ñu jël gis nga résultat bi léegi ñoom ñàkk na rek ndax ñun jur moom boo ko ñàkkee moom da nga yàgg ci biir balaa nga ko daal. ba Diop ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci démb ak tey di la sant aussi ci euh, waxtaan wi ak euh, xëy na li nga nangoo yegg ak ñun ci yenn euh, détails yoo xam ni mën na amaan amaana bu la neexoon doo ci yegg si ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi. waaw jërëjëf merci bien Fatou merci. Euh, kon mu nekkoon Modibo Diop njiital Azer ga woon euh, bokkoon itam ci parti démocratique euh, sénégalais ñu leen di gërëm ci déglu bi gërëm jaawo jàll mi fare woon ci jàppandal gi Fatou Thiam nga moo ne woon ci kàddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ci démb ak tey ñu yendoog jàmm.